très bien Diagne ñu bëri jàpp nañu ni que yéen da ngeen incohérent ci seen démarche. Mm-hmm. au début c'était Sonko day bokk day bokk day bokk. Mm-hmm. après amuñu plan B benn plan lañu ñu am muy Ousmane Sonko d'un seul ngeen génnee Bassirou Diomaye Faye muy seen plan B d'ailleurs hmm? ngeen mooy Sonko Diomaye mooy Sonko am na noo leen ko waxee. <laughs> en fait mbir mi dafa dem ba dafa jaxasoo c'est comme si que xamatoo leen sur quel pied danser en fait. ah non xamatoo leen foo leen di ah, taxaw ñun koy xam nañ fu ñuy taxaw xam nga euh, euh, dañu nekk ci politique boo xam ne gis nañ ni bu ñu gi maanaam janax day bëri pax janax day bëri pax parce que boo génnee ñu ne janax jaa ngi janax jaa ngi ne ñu dóor mu dee bu yàggee nag ngeen xool yan sit yan euh, circuit ngeen di jaar ba li ngeen bëgg ngeen mun ko jëmmal Sonko mooy sunu plan A plan B ñu dem ba ci biir ñu gis Jomaay jomaay ci ñun la bokk. Mhm. voilà mais bu ñu xamee fi ngay jëm sénégalais moo mel noonu. bu ñu xamee fan ngay jëm def naa dañ lay carte waa ji moom def naa dina def tout pour kar Ousmane Sonko. buur sàll buuru réew mi buur buur buuru réew mi non waxal rek buuru réew mi fii moom ku waxal yàlla rek xam nga ne buuro fi am ni ko bëggee ni mu ko sentir ak ni mu koy doxee bañ na ko sax moo fi wax àdduna ñëpp di ko dégg ne moom lépp lu jëm ci yoon dina ko appliquer mooy bi muy wax ci troisième mandat te lu ñu bi ñu jàppee Ousmane Sonko man jàpp naa ne est buur que Bour Sall mu ngi ci réew mi depuis le 12 octobre bi saaba si fay waxee tegu ci baat euh, Ousmane. con euh, con waaw ñaari ñaari pouvoir la exécutif la nekk. ah waaw mais moom moo ne woon lépp lu jëm ci justice danaa ko appliquer. justice nag lu mu dogal décision bi mu kii daf ko war a appliquer moom moo ko wax. dina veiller à ce que ñu. waaw mooy nga jëmmal ko. nga sànni ci kàddu boo xanaa. boo ko jëmale tamit sànni ci kàddu muy sànni. ah, ah di ci sànni kàddu moom moo wax. parce que bu ju jugee ba pare moom mu nekk exécutif di ci sànni kàddu est-ce que du discréditer. Euh, ah déedéet non non non non non séparation bi tamit xam nañu fii séparation amu fi séparation mooy li mu waa ji bëgg loolu la ñuy def justice ab euh, de joxe na décision dañ ko war a appliquer bu ñu ko appliquer moom mooy garantie pour ñu appliquer lu justice doxal te loolu muy dëgg tamit. mais bu justice euh, jëmale joxe décision te moom moo ko waxoon kenn seexal lu ko lem moo wax àdduna yëpp di ko dégg ne lépp lu jëm ci justice buñ ko euh, buñ ko buñ joxe décision dinañ ko applique fii ak le deux kii euh, nu mu tuddati avril moom moo ko wax. kon nag léegi voilà dafa am justice de deux poids deux mesures lu jëm ci Ousmane Sonko moom du ma ko appliquer lu jëm ci keneen mun naa ko appliquer kon maanaam xalaatutoon na ne peut-être. justice euh, ma nu mu tuddati euh, un magistrat dina ko oser teggi li mu wax wala teggi xalaatam parce que li kii euh, li coon def ak li saabi si fay ci droit lañ ko teg kon dañ ko waroon appliquer te loolu sax moo doon chage sam ci ni mu wone woon ci taxawaayam loolu taxul ñu jëloon ko teg ko ci bopp réew mi kon nag rafetoon na tamit moom it la même chose mu appliqué loolu au moins nit ñi sax am conscience ne kii euh, homme de droit la. mais bu dee lu ci lan luy firndeel ni moom moo tee ñu appliqué ko de ba léegi. Ah. dégguñu fenn foo xamee ne dañ ko jéem a appliqué ñu ne njiitu réew bi moo joxe décret ne euh, bu bu ko non même bu joxewul décret. parce que juges aussi am nañu. Mm-hmm. Euh, doole pouvoir bu leen di may ñu fair appliquer ah décision yoo xam ne moom la. noo doole moom bu ñu wax doole. juge dogal nga ne ba léegi appliqué wuñ ko. plus de kii nga ne doole na. doole am na y' a des mécanismes. non non est-ce que nekk ci aussi Diagne yéen comprendre ko à dire yéen quand ça euh, négatif en non, fait. non ma ne ça nous arrange ou ça nous arrange pas mooy. dañ ko war a appliquer décision de justice dañ koy appliquer. là on n'en disconvient kon jeex na. Mm. comme on n'en disconvient pas mooy dañ ko war a appliquer. loolu mooy wax gi. mais bu dee comme dogal na te appliqué wuñ ko kon mooy waaye buur bi loolu neexu ko rek. incohérence bi incohérence bi mooy sunu incohérence ci la ci la. ci ni ngeen di doxalee. nan la ñuy doxalee pour di di sunu jomaay sunu kii la jomaay bokkul ci ñun. Hmm. amuñ droit ne ne nëbb sunu kii sunu stratégie. même yeneen yu ñu xalaat tamit dañ koy waxaat ci place publique bi parce que comme ñun dañ ñuy karkaroo la ñun dañuy fexe ba seet xale de moom doo koy wër dina seet fan lay mën a jaar ba